xëyee ndax isa jéey faati penda damel ma sàmba yaaya faal Seex Ibra garmi la góor dëgg piir bàyyi lalla faal maami Seex Moodu Fallu faal euh, Seex Ibra Seex Faal du moroom déedéet ndax nag Seex Faal buur jàll nu koy wooye buur ñi jëm foofa lay xëye ndax isa jéey faati penda damel ma sàmba yaaya faal Seex Ibra garmi la góor dëgg piir bàyyi lal la faal maami Seex Moodu Fallu faal yàlla àtte na keroog ba waxee loolu Seex Adama Géey moo jëkk a joxe boppam. borom baabu. Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ. Mm-hmm. joxe boppam. Mm-hmm. jazaaka. sëñ Massamba Diop Sam. Mm-hmm. joxe boppam. incha allah sëriñ Ndam Abdourahmane Lo. joxe boppam. Cheikh Ahmadou Ndoumbe Mbacké joxe boppam. sëñ Daaru Assane Ndiaye. joxe boppam. sëñ Madou Gueye Jëmooy joxe boppam. sëriñ Eh, ah sëñ Modou Fadiama Niang ñoom sëñ Siréloo mag ñooñi ñu ñëw di jébbulu mhm. ñee ñoom dem mhm. bañ demee ba ca ñaar fukki fan ya ci la Cheikh Ibra Fall ñëw bi mu dikkee Cheikh Mouhamadul Bachir ba tey mooy wax nee na sëriñ Basiru sëñ Basiru Mbàkke moo ni mhm. Cheikh Ibra Fall moo ma ni Mouhamadul Bachir ma ne ko Mbàkke mu noo kaay ma nettali la na ma joxe sa baay sama bopp la ma jëkk a waxanteeg sa baay ba ma jëkkee janog moom ca Mbàkke Kajoor mhm. nee na sama xol sedd guy xam ni ginnaaw kii moo jébbalu woon ci kii la jébbalu woon nettali ci gimiñu boromam la naq mhm. Cheikh Mouhamadul Bachir nee na Cheikh Ibra Fall moo ko ni haka alayya muriduhul kabiru Cheikh Ibrahima Fall mhm. wa huwa min firsaani niyati tilwa seeqi yi qaala lii anna awala ma xaqaqtu alayhi cheikha radiallahu anhu min alahdi wal bayti bayaati qultu lahu inni lam yuxrijni min bayti ila talabu cheikh muwassilin ajul fi haalihi nuura xaqin tandafihu amaamahu zulamatul xalqi wa tanjali bihi ayatul xaqi law lam ajid ahadun min huwa hadihi sifatuhu ila qabruhu la balagani sidqu niyati fihi amali wa inni ubaayuka ala an la xusa min addunya bi shaaratin innama hamillahu wa daarul axirati Cheikh Ibrahima Fall nee na sëñ Basiru Mbàkke nee na Cheikh Ibrahima ma ni keroog bu ma jëkkee bàyyi koo Mbàkke bàyyi koo tey ba Dakar ñëw Mbàkke Kajoor mhm. di topp xetuk sa baay wut naa ko ci borom téere yi wut naa ko ci rijaalul xëybu yi dégg naa tur wi fu ma sa dégg tur wi mbaa sant wi dem naa fa ba keroog ba ma déggee ku ñu wax Ahmadou Bamba waaye mu sant sil dëkk Taïba ba ma fa demee gis sëñ ba lu ma ko laaj ci yàlla bala ma ko tontu ubbi ay téere di ko ci seet jox ma lawal wala saani léeg-léeg mun a to léeg-léeg mun a xiila wala xawlaani wala taraddadun wala xilaafun <laughs> nee na ma bàyyi koo fa bëgg a dem ci réew yi penku yi jàpp ni kii ma yàlla yoon doomul daa feeñ ci naar yi wala mu feeñ ci réew yi ijaas yi ba ma teg sa sama njëb bëgg a dem ca suba sa waaw la ma sëñ Tuubaa lugat lonk ma yabal Seex Adama Gueye ak Seex Maxtaar Tuure yónni woon leen tey ba ba ma gisee rek la ma xetu xet gi may xeeñ xeeñ xetu sëñ Tuubaa di ci ñoom ma toppe leen Taïba ba ba Mbàkke Kajoor ba ñu dikkee melokaan yu Seex Ibra mel tax daal xamuñu ku mu doon waay ju bàyyi ko fi benn barab nu ak sëñ bi ba noppi ni ko am na gan gu ñu toppe ba di fóon suñu yére yi ak a mar yaram ni dalaa bëgg a gis ñu ne ko sëñ Tuubaa ni ko nee leen ko mu yegsi Seex Ibra jóge fa mu toogoon waaxu wuti fi fekk sëñ Tuubaa di jëblu si ci moom ba mu doxee ba jàkkaarloo jëmmi sëñ Tubaa ji yegg suuf la faj seen ñaari maari jiy jàkkaarloo Seex Ibra Faal di raam keroog lañ mas a gis looru sëñ Tubaa di jëmm su tuuti Sidi Birahim ñuul kukk keroog la loolu njëkk am loxoom yaa ngi sëq lipp ak kawar mhm. bëtam yaa ngi xóot xong coy mhm. tuñam yi jib mu kaalawu kaalak sa móor Seex Ibra Faal di ndaamal màcc doon ndawal ñaar fukki at ak juróom-ñett bari doole lool judd lool di as gor di ko ñu xam di mbokkum ñëpp jàng ba bind alxuraan hmm. taalif alxuraan taalif ay téere ci arab di raam ak xam-xamam boobee ak juddoom boobee loolu moom lañ wax ci yaaram al istislaam wuti borom tuba nit ñëpp ni yàcc di ko xool ndax xamuñu lii xamuñu bii image muy raam wuti borom tuba ba yegsi jox ko ñaari loxo sëñ tubaa ngëpp ko ak téngam lu tuuti loolee Seex Ibra Faal fob jëm ba këpp ko ci derub sëñ tubaa ba mu yàgg loolu mu siggi sëñ Tuubaa ne ko ba jàmm nga am ndongole ana nga bàyyi ko mu ne ko tey balaa bàyyi ko sëñ Tuubaa ko ana lu tax a jóg mu ne ko bëgg a yegg ci borom sëñ Tuubaa nee na doon ab xol bi damay sar xol bi ñëkk dégg sama baat ñoo xam ne man mii maa yor njariñ sëñ Tuubaa ne ko demal nga jàng sa borom nga jàng ba ko ne lu tax a jóg ko bëgg yegg ci yàlla sama borom mu ne ko demal nga jàngi te julli ji te woori te toppi sa borom demal nga jàngi te julli ji te woori te toppi sa boroom ñëpp a ngi leen di dégg. Hmm. Hmm. Sidi Birahim waaw. sëñ Touba daal di Seex Ibra Faal daal di sukk ñaari bëti oomam nag daal di yu xam ci ku ba jàkkaarloog Serigne Touba ni ko inni lam yuxrijni min bayti ilaa talabu cheikhin wasilin hmm. ni ko nag damaa bëgg a yegg ci yàlla waaye romb naa borom kaggu yi ak seeni téere. di wut koo xam ne kii bu ma ko liggéeyalee ñaq yu génn sama yaram ak sama bakkaar ay andi génn te ma yàlla ne naa ko seet ba gis ko jébbal ko sama bopp ku ko liggéeyal tàggoog bakkaar mucc ci sawara tabbi àjjana te loolu mënees ko am ci jàng ak julleeg woor te ndax xiila ak xawlaani ak taraddadun ak xilaafun des na ko fekk ci boroomi téere waaye di su góoru yàlla te ki ma yàlla ne naa ko seet ki ma yàlla ne naa ko seet ba gis ko jox ko sama bopp su ma fekkoon mu faatu awuma ci moom lu itam la bëgg lépp danaa ko am ca bàmmeelu ki ma yàlla law lam ajru min ahadi ahadun la balaxani sidqu niyati fii amali Sidi Birahim tey sëñ dellu ko ni nga loo bëgg mu ko yegg ci yàlla laa bëgg mu ne ko loo àndal mu ko sama ngàng mhm. mu ne ko jébb loola koy may da ngay joxe sa bopp luñ la digal nga def ko te doone lu tax mhm. luñ la tere nga bàyyi ko te doone lu tax soobu ci yoonu yàlla te doo geesu dangay nangoo ñàkk sa ndey ñakk sa baay ñàkk sa bopp te adduna mii du ma la fi jox lu tolloog sagaru ba sang wooy toog doo fi am jabar doo fi am doom ndax nangu nga Cheikh Fall ko nangu naa lii ma la wax sëriñ Basiru ko wax la koo nettali sëñ Tuubaa ni ko law lam ajidu ahadu min huwa azarahu asarihi sallallahu alayhi wa sallam ila munzaru hadihi nujumi wa samaa ilati taxaqaqtu annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yanzuru ilayha la wasaqtu bi anna niyati fihi wa mahabbati la wa lafsu bi ini ubayiko ala limtisali wa lijtinaabi wa tarxiitil himmati ila llaahi tabaaraka wa taala wala tarju min ni fi dunya arishan yazilluka yatlubuka fadlan ana ahadin wa daarin ni ko man nag rasulullahi moom sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni sama diggante ak moom junni at ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukki at dox nañ fi diggante keroog ba mu gàddaayee ak ba ma feeñee su ma dikkoon ci àdduna man ahmadul xadim fekkuma fi alquran fekkuma fi sunna fekkuma fi kuy def lu baax mbaa kuy bàyyi lu bon waaye mu wóor ma ni asamaan si naa tiim njool màkka mas naa xool biddiw yii mas naa xool jant bii danaa tegtaloo ci yooyu ba tudd xaadimu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam kon yow mii ni soo fekkoon sama bàmmeel am ni nga bëgg nangul naa la sa gaayante waaye ci kaw ñetti sart mu ni ko yan mu ni ko alal limtisaali lu ma la digal da nga koy def wa liccinaa bi lu ma tere da nga koy bàyyi wa tarxiyatil te sa yite yëpp na yàlla xamoo ni euh, Cheikh Ibra Cheikh Ibra Fall du morom. déedéet ndax nag. Cheikh Ibra Fall. Cheikh Ibra Fall. buur koy wooyee. damay coupé foofa lay xëyee ndax isa jéey. faati penda damel ma samba yaaya faal Seex Ibra garmi góor dëgg piir bàyyi lal faal maami Seex Moodu Fallu faal moo tax murit ak militaire ak malaaka yam murit ak militaire ak malaaka xanaa xamoo ni malaaka laa yaxsoona laaha a amaroon mooy fa oloona maa yumaroon buñ ko mm. reyloo mu rey du ci am bàkkaar ndigal rek ko tàlloo dëkk mu taal am bàkkaar buñ ko alagloo aw nit mu alag leen te du am bàkkaar militaire du wodd boppam du dundal boppam du fay paas ci saxaar te ko mu rey da ngay perdi Seex Ibra Faal sëñ Tuubaa ni ko alal limti saali wali ci naa bi wa tarxiit himati saytu yëpp na yàlla moo tax Seex Ibra yaar rek la fi fekk ci àdduna hmm. jëf ak wax lu ci ne jël na la ca gën jëf ak wax waaw jëf ba jëf jeex liggéeyal sëñ Bamba ci gën wax wax jeex laa ilaaha illaa ci gën ca yaar rek la fi fekk jëf ak wax lu ci ne jël na la ca gën jëf ba jëf jeex liggéeyal sëñ Bamba ci gën fa kullu man xaddama nii aw saara fa najjihi wax fir lahu aw saara hmm. wax di xawaa ijëla si na daamoo fi xidmati wa hablahum maaraamoo hmm. sëñ Tubaa nee na ñi nga xam ne liggéeyal maa leen yóbbu àjjana ñoom ca quartier latin ba la ñuy dëkk seeni kër yi àjjana du fegg ca digg àjjana la ñuy dëkk mm-hmm. wax ba lu wa lu waay di wax ci adduna laa ilaha illallah moo ci gën mu féete woo laa ilaha illallah mu ne ko nag wala tarjumi ni ci dunya arisan yazilluka yatlubuka fadlan an ahli waraari adduna mii nag yow Ibra Fall bu ci yaagaar sagaru ba sag moo fi am doo fi am mbaar mu la tiim doo fi am jabar doo fi am doom nangu nga mu ne ko nangu naa bëgguma ci yooyu dara Seex Basiru Mbàkke moo ni maa laaj sëñ Tuuba Seex sa barke bi ak sa mbooloo mi ak nii la yàlla def koo ne barke bi dafa laa indi na ko fukki loxo foo ko jëlee mu ne ko ah doom faxasiti oom yaa ko sukkale woon keroog ba may raam la waaye loo ma sa liggéey nga bar sàq di ma nekk waaye ku raam nag am faxasiti oom mm. keroog may raam ñëpp di ma xool mm-hmm. sama faxasiti oom mooy lii nga gis sama ginnaaw waaye loo ma sa liggéey ma nga yomal xel di ma nekk diir bu gàtt rek mag ñëpp daal di koy bëgg nag di xool doxinam wa di ko ca roy mu nekk jëmm joo xam ne ji jëmm ju légendaire la jëmm ju exemplaire la ca na mu bindoo ca na mu mel ca xorom sa ca moom bayra ba ca moom juddu ba ca moom xam nga Cheikh Ibra loolu sax waxtaanu boppam la waaye nag yàlla waaw waaw waaw léegi nag sëñ bi nag xam nga xam nga sëñ bi ñëw nga sosu yoon wi mu tàmbali di defar sanc ay dëkk alaaj Pape An hmm. waaye lu jiitu muy dem ci tukki bii nga xam ni moo libéré Sénégal hmm. moo may moo moo tax jàkka yi bare jumaa yi nit ñi am liberté moo wax ni tekk naa jéggi xat faaka kab la xat baa sa fadala sëñ Boussora defar gi sëñ Tuubaa doon defar nit ak taqoo gi mu doon taqoo nit ba defal ko loo xam ne du àggee yilif ay nijaayam yilif ay bokkam ndax sëñ bi ay nijaayam yi ay taalibeem lañ ay rakkami taalibeem lañ ay magam ay taalibeem lañ loolu moom rekk ko am kon nag dañoo bëgg nga dikk ci lu jiitu muy dem ci géej gi sanc nay dëkk defar na ay nit seexal na ay nit ñu ami mbooloo mu soog a dem nag tukki ëndaale loo xam ni du jeex ba ilaa yawmi din te ëllëg lay gën a bari sëñ Boussra juróom-ñaar fukki at juróom la fi am juróom-ñaar fukki ñaar fukki at ak ñaar fukki ak juróom la soixante quinze ans la fi sëñ Touba am soixante ans ñetti ñaar fukki juróom la nee na sama ñaar fukki at juróom yu jëkk lu fi waaye am ay teggi na la ko may sëñ tubaa ko xam nooy waxee moom falu waxin waaw ñaar fukki at ak juróom yi ca des lu fa waaye am sa ngànga la ko may ñaar fukki ak juróom yu mu jii nag muy diggante jolof ak njaareem ku ñëw ci moom ba mu gërëm la dalay wax ni la wëral adduna mbër moo fi ragal moo fi mas a ragal demal dëkk ko dikk wax ma ko ma daanal la ko jox la bàkk yi fu la neex jox la ndam li fu la neex bàkkoo ji sëñ Tuubaa moo wax loolu mu ni ñaar fukki at ak yu mu yi kum fi gërëm dalay wax ni la wëral adduna mbër moo fi mas a ragal rek demal dëkk ko ni ma diw mii musuma koo ñi ma waaye dëkk naa ko ma daanal la ko may la ndam li fu la neex bàkkoo ji fa kam jabarta kasiran kam azalta azan wa kam fadayta asiran saara yuf diika wa kam hudoomin wa asraarin wa kam hikamin ba sa staxaali mudin saara yuf diika dama ni sëriñ bi diggante bii mu feeñee ak bii mu demee lim fi am ak li mu fi def bu doon nit du ko man xam nañ lu nit war a man ak lu nit wërta man dañ koo laaj ni ko ndax nit nga bu ni duma nit dëgg la sëñ Ka nee na ko doo nit doo jinne te doo malaaka doo kaayinaatillaahi doo musaaka walaay wax nga dëgg su fekkonte ni ba mu feeñee jamono la moo ko doon alxuraan tàmbalee bind ba mu feeñee ba am juróom-ñaar fukki juróom ku doon tëjoon nit nit juróom-ñaar fukki juróom ci néeg bu jógee dafa lekki mbaa mu mhm. jàppi mbaa mu gëmmentu nelaw bu jógee dellu di bind du taarif un dixième ci li fi sëñ Tuubaa taalif lim taalif nee na karaamati xattu yet yi mhm. sama miracle mooy sama bis bu yàlla sakk nga gis xës xoolal sëñ Touba ba mu fi jógee léegi 1927 la te saa yoo demee tubaa tubaa Touba da ngay dem ci daa jaaykat téere yi ne ndax am ngeen téere bu yees ñu wan la téere bu yees ba ngeen dafa mel sëñ Touba dafa fatu di bind di génne ñuy móol loolu miracle la. <laughs> ñu dem ba wutal ko bis. waaw nga xool lim fi sañ ci dëkk. Mhm. lim fi leeral ci bayaal. Mhm. lim fi seexal ci góor. lim fi résoudre ci problème. ak ñi fi naan sëñ Touba nee na ma ak lim fi bind. bi mu sosee yoonu Mouride ca Mbacke Kajoor yeesalaat dëkk ba jox ko bàyyam sëñ Ibra Mbàkke Kajoor dafa ñëw Daaru Salaam Mbàkke bi mu dikkee si Mbàkke Bawol mhm. fekk fa si ànd ak Seex Faal ak mag ñu baax ñooñee mu àndaloon mu di tàmbali nag di sikar di xiif di mar di jàng xasaay di liggéey te duñ wàcc di naan ndox mu tàng duñ damm duñu dee dara du leen dal di daw ci suñu sàkkat yi ak yéeg ci garab yi di sikkar di daanu te dara du leen dal bi mu dikkee fekk fa ay bokk te Mbàkke Mbàkke dëkk boo xam ne moom ñëpp ko bokk mhm. te sëñ bi xam nga borom suuratul ijtimaiyatun la bu rafet teggin yi ak yar yi dafa nekk ci jëmmam ja mhm. te dëkk bii moom ñëpp ko bokk te ñii mu àndal dikke nañu mbir moo xam ne mii xewagul fii mhm. te mënu koo imposer kenn te Cheikh Ibra Fall mii mu àndal nangootul ku bind ci daay sëñ Bamba nangootul ko dugg ci néegam ak dàll mhm. nangootul ko nuyoo naam wala labbayka nangootul ku jox sëñ Tuubaa benn loxo ber na ko ber na ko te bakkanam la ci teg <laughs> sëñ bi daal di xam ne toxutel kenn moo gën a yomb toxutel mbooloo dafa daal di dajale bokk yëpp moom Serigne Touba neen Ibra Fall mi jàpp ma ko mooma a mooma jàpp mhm. te nit ki lim jàpp la mën a bàyyi waaye li ko jàpp mënu koo bàyyi mhm. daal di toxoo Mbàkke Bawol dem sanc Daaru Salaam mooy taawub daaru yi moom la jëkk am ci dëkk bu moomal boppam ba mu fa tegee tànkam dafa ne amin bi daaril fata tuubaa li maskani hi daaru salaami kama bin makka wal madina dafa mujj yoon wu jógee Mbàkke jëm Daaru Salaam mel ni yoon wu jëm marché mhm. rajulun fa rajulun daarun fa daarun xaryatun fa xaryatun cay ñu koy baagante rek fa minhum man yoxti li hadaya wa minhum man yatlubul ilma wa minhum yastalim mhm. ñii di jébbalu si ñii di joxe addiya ñii di dañ kumpa si foofa xumb lool sëñ Tuubaa topp ci guddi mhm. sañc Tuubaa sax na fa ab diir kenn xamul fu mu nekk mag ñëpp di ko wër sëñ mënu ba tey boppam di wër fee Cheikh Ibra Fall boppam di wër fee ba sëñ Tuubaa gis buubu ja rëbb boobee ci ni xam xamee xisa bi mhm. ni ko demal ca sama daaru salaam nga seetal ma fa ndongo ca sama frère ku yox ma Samba Diop Samb soo ko gisee nga indi ko fii te bu leen kenn yëg buubu ja daal dikk daaru salaam daal laaj sëñ Masamba Diop mu ne ko ah man de gis naa koo xam ne kii dafa may laaj loo ko tudd Masamba Diop mu ne ko nu mel mu ne ko jëmm ju tuuti la de ma nga laxasu ba tu ay kaarale ko ci ndigam la ba dara kii ko ma nga nga ci àll ba yorul dara ab téere ma ngi ci taatu garab waaye jëmm ju mel nanga nga misaal ko rek mu daal di daanu ko sëñ Bamba góor mu ne ko nee na nga topp ci man ma woon la fa mu nekk booba amul ay repère waaye garab yi mu doon damm di ko tegte loo xam ne fii jaar na fi mhm. ba gis sëñ Tuubaa bi mu dikkee moom sëñ ma Sàmba Jóob Sàmm mhm. fekk sëñ tubaa daal loolu ama wasasin la ama wasasin atum junni ak ñetti téeméer ak juróom benni at ca gàddaay gaag booba wala muy 1888 sëñ Tuubaa ni ko Masamba Diop mu ni ko Mbàkke mu ni ko ana ba Daaru Salaam mu ni ko ña fa ñëpp a ngi lay wër kenn xamul foo ne mu ni ko Masamba Diop mu ni ko Mbàkke mu ni ko maa la waxoon ni la nga wuti ab yóbbal wuti ay buus wulli leen ba ñu nga def ci baraay ma ànd ak yow ren màkkatal mu karama siyaare ma dënt mun a war at moomee la sëñ Tuubaa dem màkkatal mu karama siyaare mu ne ko Mbàkke dem naa Kajoor wut naa fa ay buus leen ba ñu mokk naa ci baraay ma nga Daaru déglu sa ndigal sëñ Tuubaa ni ko Masamba Diop mu ni ko Mbàkke mu ne ko yoon woowee ma bëggoon a ànd ak yow ngant tabbi na ca kama woo foofee yàkkamti na ma ba far na ma gàttandu si fii nga ma fekk tey loolu la sëñ Tuubaa wax yonent far ma gàttandu si mm-hmm. mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax xam nga fii nga ma fekk mooy fan sëñ Masamba Diop daal di jéer jéer mooy xool ci kaw téen xool xool gisul ab àllak mm-hmm. ab dédd bu ñuy taras ay picc yu sab dara néew fa ak basang sax sañ bi amu ko ca ko mbàkke fi de xa ma ko mu ne ko fii mooy Touba teg ca ne xarasaha allahu taala min kulli makruhin wa maqufin bi jaahi man haajara alqaidu ilayha li ihyaai sunnatihi sallallahu alayhi ma sàmba Jóob mu ne ko mbàkke mu ko gis nga fii nga ma fekk digganteem ak fee yàlla fay jaam ñi bu ëllëgee dox xaju fi war xaju fi tey ma sàmba Jóob mu ne ko mbàkke mu ne ko lépp loo déggati ci àdduna muy lu baax fii ko tax a jóg feeg yëg seegul banque wuli tànkam fii la àdduna yi mujj fii la lislaam di mujj fii la alxuraan di mujj fii la dëgg di mujj fii mooy Touba. wax na ba mu koy wax loolee de gëmoon na ko waaye tey jii bu dul suwaatoon. ilaa jàkkaarloog jumaam ji ak sororam yii. ak dëkkam bii. ak lenn lislaam lu ne ñu wutal ko fa maarifa. sëñ Touba ay waxam xar-xaru doj la du fanaan àll. Mhm. ñu daal di leeral dëkk ba sëñ Touba dëkk fa juróom-benni at. Mhm. aj googee mu naroon te yàlla gàllankoor ko. moom la wax ni wax wallazi xiiqa jismi an ziyaratihi lakin lisaani lahu kal xalbu zawaar daal di organiser boppam nag moom sëñ Touba organiser jëmmam sàkk tubaa ay masaakir sàkk fa ay kër dëkk fa dëkkal ak njabootam seex yëpp dëkk muy jàngale di tagg rasulullahi sallallahu taala wa sallam yoon wiy dox di defar njëbbal gii dox uhuh. ba ama bay sa Chine nag di ñeen fukki atam yu manqué ñetti weer ci la gis rasulullahi sallallahu alayhi wa an zahril xay bi jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lu dul kiiraay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko loola koor la ba tey ci jàkkay daaru xudóos joojee sëñ Mbàkke Madina defaraat tabaxaat ko nga xam ni bañ koy gas denc borom tubaaya ak téeréem yàlla yi lépp ca génne foofee fa la gisa rasulullahi sallallahu alayhi wa bi ni ko dama laa andil si xat bu ak kutbaaniyatu donn loola sama bopp wiraasatan kaamilatan sirran wa alaaniyatan fil ummati wa diini sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ni ko sama lii de bëgg naa ko lool waaye dama doon laaj ak xutbaaniitu ñaata at lay am ci nit ñaata at lay am ak nit mu ni ko ak xutbaaniitu nag téeméeri at lay am saa ko amee daal di jeex mhm. garanti ba jeex assurance ba jeex mu taxoo ci loxoy kooku dem ci keneen sëñ Tuubaa ni ko li ma bëgg mooy lu dootul jeex wahab li aziman fadli wal fadlu li abqi lay defal nag ko waaw mu ne ko loolu nag doonahu bay u dimaa mhm. daanaka mu xaal la jomm na ndax ku ma mas a feeñoo nii ma la feeñoo lii lay bëgg waaye la ko koy may su ma ko tegee suñ demul ba dimbali ko sax lam yoroon da koy ñàkk mhm. te yow bugguma nga nga yàqule ndax cofeel gi ma sopp ak li nga ma tagg ni mu toll sa ak der bii nga yor ak sa jom jommay ak la sa bu rek wax la la yàlla waxoon Moussa muy fa xusmaaka aatiti koo kun mina shakirin sëñ Tuubaa ko fa bi maa situ firdaaka axtabir nii faxtiyaar yi maa kaana firdaaka ni yoon bu ma yërëm dimbali ma waay bu ma yërëm sa doom boo ko naree jariñ mhm. doo ko yërëm sa boo ko naree jariñ doo ko yërëm sa soxna bu la naree jariñ doo ko yërëm ak bi ni ko ah du la ci dimbalee dara de mu ni ko ndokk mu ni ko boo dawee loo amoon dang ko ñàkk mu ni ko ndokk nangu na mu jaayanteeg moom foofe Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall fa lay xëyee ndax isa jéey faati penda damel ma sàmba yaaya faal Seex Ibra garmi la góor dëgg piir bàyyi lal la faal maami Seex Moodu Fallu faal Bienvenue sur Salam